Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Serigne diskurbi bi bala ñoo jang discours bi dañ lay présenter ñi nga xamne ñoo and ak ñun liggéey bi nek ay jambar lol jihad la def ki moy al oustaz Mouhamad Sarr di sama adjoint ki ren ji la fi ñew moy oustaz mitam Sarr momitam ci école bi la jangé ba génn ak sayda maam jaara mbay ak Aïssatou Diouf moo yore wàllu français bi ak sayda roqiyatu ngoom ak oustaz fàllu fay ak oustaz kee nga xam ne moo ñu dalal muy oustaz abdoulahi ngoom ak oustaz xaadim euh, thiaw ak oustaz abdoulahi diouf ak ticca nga xam ne moo yore français bi ak anglais bi muy monsieur Aline Tine euh, sëriñ bi ñii ñoo ŋànk daara ji nekk say dongo nekkal la fi nekkal fi mboolem waa Azhar gépp أما بعد أيها الجمع الكريم أيها الجمهور العظيم أيها الصادة والسيدات أصحاب العلو والسعادة والشيوخ البررة ممثل الحكومة أولياء أمور الطلاميس والتلميسات وكل من مد يد عون للمكلفين بمهمة تحسين هذه المدرسة بالإنجازات والإصلاحيات نلقي إليكم تهية معطرة بطيب المسك والسعفران أرجزة العث والامتنان مقتبسة من نور القرآن تجلو لكم السرور والأمان تهية أهل الجنة في الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بصفتنا مديرا لهذه المدرسة نوجه إليكم هذا الخطاب ونرحب به جميع الضيوف خاصة الوفد المبارك وعلى رأسهم الشيخ مامور مكة بن شيخ محمد المرتضى المجاهد الأكبر نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بكم ونشكر أهلا غوي عامة ونقصص الشكر والتقدير لسرين شيخ جوف المريد الصادق الذي له يد ملموثة في تحسين هال المدرسة وبعد ذلك نبين لشيخنا الكريم ابن المجاهد الأكبر ما يعطري هذه المدرسة من النقائص المرجو إكمالها من قبله نهيتكم علما بأن مدرستكم هذه من أقدم المدارس في هذه البقعة المباركة حيث ترجع تاريخ تأسيسها عام 1972 وتم انضمامها في الأزهر الشريف من قبل الأستاذ يسمى بمصطفى جنج سنة 1979 وقد ثبت أن الشيخ محمد المرتضى نصل بها كظائر في نفس هذه الثنة ولكن نظرا لقلة اهتمام البعض صلت فترة طويلة وما صالت تحتوي ثلاث فصول فحسب أي الأول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث الابتدائي وبعون الله وتوفيقه وبمساعدة أهل القرية بدأت تتطور شيئا فشيئا حيث أقمنا تسع فصول عام 2012 واستمر الأمر هكذا حتى أصبحت المدرسة تشمل اليوم مرحلتين الابتدائية والإعدادية وقد ارتفع عدد التلاميذ بشكل بارز فعدد البنين للمرحلتين وصلت إلى ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين تلميذا وعدد, وعدد البنات تصل إلى ألفين وتسعين تلميذات وعدد المدرسين أربعة عشر ومنهم ثلاث نساء واحدة منهن مدرسة فرنسية وعدد الفصول 12 وأما بالنسبة للمدارس الفرعية التابعة لهذه المدرسة وقد قمنا بإحصائها في هذه السنة فبلغ عدد فروعها خمسة عشر والمدرسين ثمانية وأربعين مدرسا والمجموع الكلي لعدد التلاميذ في المدارس الأزهرية المتواجدة في البلدية وصل إلى 2856 تلميذا وبعد هذا التطور المحمود لا نزال أيها الشيخ المبجل نحتاج المزيد من الفصول الثانوي نظرا للظروف القاسية والمشقات التي يكابدها خريج هذه المدرسة في سبيل مواصلة دراساتهم في الخارج ونذكر منها عدم توافر المأوى وصعوبة التنقل وارتفاع التكاليف المدرسية ولإثبات إلهاهية هذه الاحتياج هذا الاحتياج نخبركم أن جماعة من خريج هذه المدرسة يضطرون أحيانا إلى إلى انقطاع عن الدراسة لعدم القدرة على مواجهة تلك العقبات الآنفة الذكر ورغم كل هذه النقائص نكن لكم أيها الشيخ احتراما هاما واعترافا تاما بجهودكم الباهرة وإنجازاتكم الظاهرة في هذه البقعة المباركة وغيرها من الأراضي الأزهرية وفي الختام نشكر كافة أهالي نغوي ابتداء من السادة من سادة السوايا الدينية ذو البذائر الثاقبة أولياء التلام والآراء السائبة والدعم المادي والمعنوي الذي يقدمونه دائما لصالح المدرسة ولا ننسى أولياء التلاميذ الذين ائتمنونا أولادهم واستودعونا مستقبلهم هذه الظروف تحت هذه الظروف الحالكة المتسابقة وأخصص أفضل التقديرات وأجمل التشكرات للمدرسين الأزهريين العاكفين على مهنة التعليم بالتربية في نجوي وخاصة مدرسي هذه المدرسة الذين لم يألوا أي جهد سبيل نصر التعاليم الإسلامية واللغة العربية في هذه الجبعة المتعطشة للتعرف على الشريعة الإسلامية ومعانقة ثقافتها وآدابها فإنهم مهما يعانون من الصعاب والشدائد يصابرون ويسيرون تحت اسم الجهاد وأشهد أمام الملأ جهدهم الجبار وسجاعتهم الجسار ومستواهم الرفيع وتعاملهم الطيب اللطيف مع التلاميذ من جهة ومع الإدارة من جهة أخرى ولرفع قلمي أبجل سراج الأزهر ودوء الأبهر صاحب السيادة والمقر مخجل البدر والقمر شيخنا صين ممر صلاح الأمور الذي دها بملكه وجاهد بنفسه في سبيل محاربة الجهل والقضاء على الأمية وتشجيع التعلم وتكوين الأجيال على الإنسانية وفرارا من عدم الوفاء بحق الآخرين نشكر جميع أهالي وكل من شارك معنا هذا اليوم المبارك wa naqulu lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu jéem a tënk rek bi lahjatil wolofiya sëriñ bi dalal la ci dëkk bi ñu ngi lay ñaanal sunu borom defal la tawfiq ak taysiir ba naal yi nga am yépp sunu borom defal defal la ko Nek gi ñu nek ci boppu daara ji nekkandi fi ci lañuy ñuy yëkkati kaddu gi muy kaddu cant gu tambalé ci yow ci lu reey li ngi ñu defal ñu ngi santit mbolem wa Ngoy gëpp di ak cant akuk jaajëfal akuk siar gu mat sek, ci serigne Cheikh Diouf mi nga xam ne al murid as-sadiq doon jëmm joo xam ne loxoom mësula jóge ci daara ji guddi ak bëccëg mu ngi jëf ak wax lu jagal daara ji kon pakk bi pakama béréb bi bérébama ndax léppam guddeem ak bëccëgam lépp ci daara ji la ko def te loolu yëpp mooy lu defar ndaw ñi def ci ñoom liimaan def ci ñoom lixla ixsaan ndax loolu mooy tax ëllëg mu mën a noppalu ñoom ñu mën a noppalu kon sëriñ bi ñu ngi koy jagleel bu baax a baax li nga xam ne mooy ak cant ndax léppam rek def na ko daara ji jox na ko daara ji di nuyu bu baax sëriñ bi waaye di leeralal sëriñ maam Mbàkke moom Cheikh Mouhamadulil Mourtada jafe-jafe yi nga xam ne wala boog manquement yi nga xam ne daara ji am nañ ko te yaakaar la ci sëriñ bi ñu ngi lay xamal ne daara jii day bokk na ci daara yi fi jiitu ndax mag ñi fi nekk nee nañ ci atum 1972 ci lañ ko fi sos waaye Cheikh Mouhamadulil Mourtada jaar na fi jaar goo xam ne atum 1979 la ñu boole ko ci li nga xam ne mooy Azhar kon loolu lu yàgg la kon sëriñ bi daara ji bam sosoo ca at yooyee ba léegi weesu wuloon ñetti kalaas ñetti kalaas rek la nekkoon mooy awal ibtidaa ak saani ak saalis waaye ci ndimbalug yàlla ak taw fii xam ak seeni ñaan ci la ak ndimbalug waa dëkk bi ci la école bi tambali di dox depuis bañ fi ñëwé 2010 la fi école bi tambali di dox di dox ba ñu ci 2012 bi ñu tabax juróom ñenti classe waaye mu continuer ci doxinam boobu nga xam ne moom lay yokku ba far am ñaari marhala muy marhala ibtidaiya ak marhala ihdadiya waaye élève yi tam dañu dañu ñu di yokku ndax nit ñi ñëpp dañoo bëgg a denc ak ngir mën a jaamu yàlla ni ko bëggee élèves yi ñu ngi yokk yokku gu gu leer nañ ndax góor ñi bi ñu leen licencié ren jii rek mu ngi toll ci ñetti téeméeri dongo ak fanweer ak ñett bu dee jigéen ñi ñu ngi toll ci ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk jàngalekat yi nga xam ne ñooy saytu loolu ñu ngi toll ci fukki jàngalekat ak ñeent am na ci ñoom ñetti jigéen kenn ki ci ñoom di jàngale li nga xam ne mooy français classe yépp bu ñu leen boolee mu ngi toll ci fukki kalaas ak ñaar. bu dee école yi nga xam ne nag ñoo bootu ci école bii te Seyd Ousmane Sarr jiite ko école yooyu mu ngi toll ci fukki école ak juróom jàngalekat yay yëngu ci daara yooyu ñu ngi toll ci ñeent fukki jàngalekat ak juróom-ñett waaye sëñ bi yokkute googu yëpp teewut ñun ñuy am ay soxla ak ay yitte ci lu ñuy def ba am sanawiya ndax li tax mooy gone yi nga xam ne ñooy bàyyeekoo fii. bo yewo fajar fek len ci tali bi sa yaram day daw ndax fo xamne 8 km la gone yi di fajaru duñu am lu len yobbu ñuy jankontel ay coono loolu señ bi ñu lay dagan, bu fekke mën nga ñu koy jappel rek ñu fexé am sanawiya ngir lan école bi gone yoyu di génne fii mën a bañ a tee jànkonteeg ndax coono yi bokk na ca ñak logement bari na ci ño xamne dañuy bay am jang ndax amuñu fuñu losé to mënu ñoo dox bambay bokk na ci itam manque transport lu len yobbu amuñu ko. waaye bokk na ci itam jafe-jafe yi am ci école yi te yu takaalif yu baree bari di di am ci école yi loolu bokk na ci li nga xam ne gàllankoor na gone yu bari ñuy dagg seenam njàng te loolee mbàkke gënalu la boo sañoon gone gu ne day jàng ba am lim xam lim war a xam loole nag bari na gone yu bari yoo xam ne dañuy am ci ñoom yaakaar waaye dañuy mujj bàyyi ndax jafe-jafe yooyu sëriñ bi ñii nga xam ne ñooy génne ci daara ji dañuy loru loru gu metti ci jafe-jafe yoy nga xamné mom lañ lim sank sëriñ ñu ngi lay xamal né jafe-jafe yoyu day ñu ngi la koy léralal dila ko dila ko dagan nga japp leen ci sa lay katan ñu ngi lay delloo wormal warma bu mat sekk di nangu bu baax li nga xamné mom nga ñu may sa njambarte gi nga def ci azhar bi sifa amma waye wa bi bi azhar bi sifa qasa li ñu may tay ñu ngi lay nangul aka worma warma ak ci réalisation yi nga def nga xam ne àdduna gépp bitim réew ak biir réew mi yëpp ñu ngi koy séere ci woote lislaam ak tasaare njàngleem lislaam bala ñoo daaneel sunu kaddu ñu ngi sant mbooleem doomu ngoy gépp di sant mbokk yi nga xam ne ñooy kilifa diine yi fi teew teewal fi umma islamiya gépp ñu ngi leen di nuyu waaye di nuyu mbooleem ñi nga xam ne def nañ ak ndimbal akuk jàpp ci bés bi ba bés bi mel nii bàyyiwuñ ci kenn ñu ngi noyu ñëpp waaye du ñu fàtte mukk ñi nga xam ne ñooy parent d'élèves yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant ndax confiance bi ñu am ba dënk ñu seen doom yi dënk ñu seen ëllëg loolu sëriñ bi ñu ngi la koy séeral ñu ngi koy ñu ngi leen di sant bu baax a baax ci jafe-jafe yi ak tartar yi te ñu am confiance jox ñu seeni doom ñuy nekk ak ñoom guddi ak bëccëg loolu ñu ngi ciy sant parent yi bu baax ñu ngi jagleel ak cant akuk ziar ñeel mboolem jàngalekat yi nga xam ne ñooy yëngu ci gox bi wala ñoo nekk ci mboolem département Bambey mboolem jàngalekat yooyu yëpp ñi fi teew ak ñi teewut yëpp ñu ngi leen di nuyu rawatina jàngalekat yi nga xam ne ñoo nekk ci béréb bile sëriñ bi ñii day ay góor yàlla lañ ndax ñoom kenn mënu la xam ci ñoom li ñu am ak li ñu ñàkk li ñu leen di jox doyu leen te bu leen neexoon di def wane leneen waaye amut kenn ci ñoom ku ñu mën a woon soo ul adab ci lan liñ liñ fi jot barakas neew amut kenn ku ñu ci mosa jëflanteel jëflante bu sefaano ñoom ñëpp bu ñu amee ñu muñ bu ñu amut ñu muñ loolu nag dañ faw ñu seeral la ko ndax vacances yi lu ne dañuy jànkoonte ñoom ñu ngi nii xam nañ ci loolu moom si fa amala bil ashar kon sëriñ bi faw ma jagleen ñoonu ak cant ndax lu ñu mën di jànkoonteel ci ay coono dañ koy muñ di ko jëlale di ko jéggale kon loolu nag faw ñu seeral la ko sëriñ bi bala ñoo yëkkati suñu kali kalima nag faw ñu gën delloowaat màggal ak sargal kii nga xam ne mooy suñu gan bu tedd bi di Cheikh Mamor Mbacké ñaan yàlla suñu borom yàggal ko fi lool ñu ngi nuyu mbooleem ku jàpp ci bés bi fu délégation bàyyeekoo rek ñu ngi leen di nuyu bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.